bonjour chiffre ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroune Marcel maa ngi lay nuyu di la ziar. di la di la fayaat di la ziar soxna naat ak nuyuwaat téléspectateurs yi. Mhm. Mhm. alors tey Marcel euh, démb dafa mel ni euh, match yu mujj huitième de finale yi def nañ ko ba noppi ci kaan mhm. bi. ak ñaar yi mujjee qualifié. exactement ñaar yi mujjee euh, qualifié depuis démb ci guddi lañ ko xam muy Guinée équatoriale ak Égypte dans l'ordre Égypte la d'abord ensuite Guinée équatoriale Égypte gannaaw ba ñu defee 0-0 dem prolongation kenn dugalul ñu daal di dem tir au daal di gagné 5 Euh, ñii di waa Côte d'Ivoire Mali Guinée équatoriale même chose ah 0-0 ñu dem prolongation kenn mënul dugal et puis. Guinée équatoriale daal di mujj euh, gagné 6 tirs au but à 5 ñu gis ne ne euh, muy euh, dernier huitième de finale yi nga xamante ne amul kenn ku ci dugal seul 12 buts bu ñu xoolee ci juróom-ñetti match yi jot a am fukk ñaari buts kese lañ daal di lañ daal di dugal mu doon donc ñaari ñetti huitième de finale hein, au total yi nga xamante ne lépp ci tirs au but la daal di mujjee gannaaw Burkina Faso Gabon Gabon ak donc Côte d'Ivoire Égypte ak Mali Guinée équatoriale. Okay, alors xool le cas gagnant ah ñu gis na ne euh, la Ligue des super noonu la ñu ko tuddee ndaxte euh, bu ñu xoolee Cameroun ak Égypte boo leen totalisé ku ci nekk am na en tout cas ñoom ñaar ñu ngi totalisé douze Coupe d'Afrique des Nations donc cinq pour le Cameroun sept pour l'Égypte on le rappelle la force CEDEAO noonu la ñu tuddee beneen bi ndaxte Sénégal Burkina Faso ak Gambie tamit ñu ngi ci biir mais ñoom ñëpp kenn musu cee gagné Coupe d'Afrique des Nations waaye Sénégal ak Burkina Faso mus nañ finalu ci ci boobule compétition les affamés du Maghreb Euh, Tunisie ak Maroc bi nga xamante ne dañ leen di présenter tout le temps comme les grands favoris comme euh, en tout cas parmi les grands favoris ci mhm. ci bile compétition waaye Tunisie depuis 2004 daal di gagné sa seule et unique euh, Coupe d'Afrique des Nations Maroc depuis 1976 la daal di gagné euh, sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations ñu tuddee leen donc les affamés du Maghreb et puis le 100 pour cent la Guinée équatoriale bi nga xamante ne bi mooy ñetteeli participation am mhm. et ñetteeli yoon muy dem au moins en quart de finale soxna Naata ñu mhm. taxaw tuuti Marcel ci les malheureux maanaam équipe yi nga xam ne dañ leen éliminé donc le quart des perdants quart noté CAR de la CEDEAO quand même ndaxte am na ay euh, grosse pointure li mel ni Nigéria Côte d'Ivoire Mali euh, et peut-être même la Guinée yi nga xamante ne dañ daal di toog euh, de façon inattendue ci yi les huitièmes de finale Cap-Vert moom tamit en tout cas moom la surprise elle est moins grande moom mi nga xamante ne bi tam moo ne woon sa troisième participation les vaincus magnifiques ñi di Comores ak Malawi bi nga xamante ne vraiment ku ci nekk wane nga ne en tout cas amoo dara looy looy sa bopp Sisyphe Sisyphe c'est dans la mythologie grecque mu di kenn koo xamante ne yàlla da ko tegoon nattu euh, muy jéem a pousse benn xeer ba pare affaire bi di del donc c'est un petit peu le, le, le même syndrome avec le Gabon bi nga xamante tout le temps day am équipe compétitive waaye daal du xas ba yegg euh, fi mu fi mu bëgg a jëm mhm. alors euh, ñu ñu le quart déséquilibré voilà bu njëkk bi Gambie Cameroun mu nar a nekk la première rencontre officielle entre diggante ñaari sélection Gambie donc pour sa première participation à la CAN Gambie daal di réaliser déjà yegg si huitième de finale waaye jàll sax dem ba quart de finale et puis contre la Guinée ñu gis ne ne euh, dañoo créer la surprise gannaaw ba gagné euh, série nationale bi 1 but à 0 donc le Cameroun moom dina def déjà mieux en huitième de finale et puis on a remarqué quand même que les lions indomptables face aux Comores dañu daal di wone euh, de de gardien de but de métier eh bien euh, euh, amoon na jafe-jafe bu bëri pour euh, mën a fexe ba jàll en euh, quart de finale. Mhm, mu am ñett ñoo xam ne moom revanche lañ bëgg. voilà ñett ñetti yi nga xamante ne mbiru revanche lañ ciy nar a waxtaanee lu mel ni Burkina Faso euh, Tunisie la revanche de 2017 euh, ñu njëkk fàttali Burkina Faso naka la def ba yegg quart de finale dafay daal di dóor maa ngi ko wax sànq le Gabon au tir au but au bout du bout à 11 instant ñu def un but partout dem tir au but Burkina daal di gagné et puis ñoom waa Burkina Faso bëgg def rek comme ni ñu defoon 2013 maanaam yegg si au moins ba finale Coupe d'Afrique des Nations Tunisie moom daal di créé la surprise gannaaw mu toglowee Nigéria bi nga xamante ne moom amul woon match nul ci phase de poule mu daal di koy togloo 1 euh, Tunisie demi-finale la leen Sénégal togloo woon peut-être defaat sax lu raw euh, yegg demi-finale donc maa ko la dernière rencontre en Coupe d'Afrique entre diggante ñaari sélection quart de finale la tamit en Burkina Faso moo Tunisie 2 à 0 alors euh, ñu xool ne Égypte Maroc c'est le même constat dernière

attitude collective yu yu bëri bëri ci seen biir équipe et puis à l'instar de l'Égypte le Maroc fait oublier son élimination surprise huitième CAN 2019 bi nga xamante ne réewu Bénin moo woon beneen affiche bi nga xamante ne c'est toujours dans le cadre des revanches mu Sénégal Guinée équatoriale dix ans après comment on se retrouve euh, ndaxte ñuy fàttali quand quand CAN ñaari sélection yi mosoon neen daje 2012 la woon deuxième journée phase de poule euh, Guinée équatoriale gagné fi woon Sénégal

Sénégal Guinée équatoriale euh, Japoma la waroon amee ñu indi ko euh, stade euh, Amadou Ay Diop bu bu Yaoundé. Oh, en fait c'était mais on a surtout déployé la qualité de la pelouse au niveau du stade Japoma mais en tout cas Gambie Cameroun foofu lañ maintenir on espère que télescopage du entre ñaari affiches puisque ce sera le même jour et au niveau du même stade. on espère qu'il y aura pas de tir au but de prolongation interminable. interminable euh, soxna naata donc euh, ñu jeexalee euh, avec justement le calendrier potentiel des potentiels demi-finales vainqueur match Gambie Cameroun moom mooy nar a dajeek vainqueur match Égypte Maroc les vainqueurs du match Burkina Faso Tunisie nar a dajeek le vainqueur du match Sénégal Guinée équatoriale là encore il y a beaucoup de revanches qui s'annoncent en, perspective ñuy fàttali que la première demi-finale se jouera le février et la seconde le février prochain soxna gisee affiche wu quart de finale yi. affiche wu quart de finale yi bon euh, je pense que yu si bëri xaaruñu ko woon. Mhm. mais euh, xam nga kan bi dafa xaw a doy waar. Malick mi ngi koy junj. c'est la canne des surprises apparemment. Euh, bon surprise je sais voilà. pas mais euh, en tout cas on dirait que c'est pas la canne des équipes joueuses. Mmh. parce que. nu mu tuddati équipe bu Côte d'Ivoire ak Nigéria ñoom la jàppoon que c'était les deux équipes les plus séduisantes ci premier tour bi euh, pratiquement ñëpp gis nañ ni vont aller au bout ñu ñëw huitième de finale ñu éliminer leen ci élimination yu gaaw ce qui veut dire que daal un match mm. n'est jamais gagné mm. avant nga koy euh, jouer te mm. kan bi tamit euh, daf ci am loo loo xamee ni dafa déterminant. Mhm. Euh, Marcel mi ngi wax sànq ci but mais tamit am na leneen loo xamee ni je pense que tamit euh, lu déterminant la ci CAN mooy c'est la CAN des cartons rouges. Mhm. Euh, soo xoolee huitième de finale sur les huit affiches cinq yi. yëpp am carton rouge ah am na ci match yoo xamee ni sax am na ñaari carton rouge mhm. te souvent tamit nekk na rouge yoo xamee ni dafay maanaam euh, déterminer suite match bi. gis nañ mhm. Sénégal Cap-Vert mu fa demee woon gis nañu Nigéria Tunisie. Mhm. te VAR moom mooy indi carton rouge yooyu. da mhm. veut dire que fi mu nekk nii arbitre yi euh, dafa mel ni que maanaam il n'arbitre plus quoi euh, machine bi ma nu mu tudd technologie bi moom mooy arbitrer. te souvent nag day. VAR bi waaw moom la wax. bon moom moo tax parce que dañuy seetaan dañuy bàyyi VAR. VAR bi def liggéeyam ñu dem. xool yi ñëw Gassama les Maliens ont obtenu un penalty ben... non mais, mais mais plus que ça ah, ci VAR bi am na ay action rouge boo xamee ni euh, jox nañ ko Comore jox ko Cap Vert Malien amoon nañ même tacle bi dem. boo xamee ni VAR mënoon euh, tamit euh, maanaam li ñuy wax daal uniforme ci décision yi. Mm-hmm. et ça aussi ça fausse un peu euh, la compétition. te ça peut dina continuer di wéy tamit ci Coupe d'Afrique moo tax daal comme ni nga ko waxee surprise dina bari. dina bari incha allah le choc mooy mooy duel bi nga xam ne. Mm-hmm. mooy le duel du Maghreb. puis voilà dina dina dina métti lool mooy mm-hmm. choc bi ci gën a gën a gën a saf. d'accord merci beaucoup El Hadj Malick politiquement nag Égypte bokkul ci Maghreb nag. non non bokkul ci Maghreb absolument Moyen-Orient la bokk merci <laughs> beaucoup El euh, Hadj Malick Cheikh Tidiane Diaw Chérif léegi dañuy euh, jàll ci de quoi est-il le